naan bi daganul ci jullit muy naan lu koy màndal daganul ci jullit muy tux lu koy màndal tux sax daganul ci jullit tabarkàlla soo jàngee alquran day wax ni innamal xamru wal maysir loolu mooy tegtalu ne nit warta naan sàngara wàllu jëfandikoo tux nag boo jàngee alquran dafay wax ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula waxaat feneen ne inna allaha la yuhibbul musrifin yooye mooy yi ulama yi boole ba gis ne tux dañ ko war a bàyyi wal junoonu ak saddum jinne bokk na ci liy sabab toj njàpp saddum jinne saddum jinne mooy gone mooy nit kuy dox timis wala këram bari ay ceeb yi ñuy wetti wala yu demee ni ki yooyu ñaari kër yooyu dañuy am jinne léeg-léeg ñi nga xam ne dañuy juum duñu sàmmoonteeg sunna ñi ko yonent bi tëralee alayhi salaatu wasalaam te zikkar yaag fegu yaag léemu yaag yu demee ni ki yooyu léeg-léeg jinne sadd leen su ko defee ñoom tam ñu mel ni ku xëm di crise tabarkàlla ku def loolu loola mën naa sabab toj njàpp kon ñu boole ko ci yii sabab toj njàpp wal xublatu ak fóon fóon mooy góor gu fab gémmiñam teg ci gémmiñu soxnaam loola day toj njàpp loola day toj njàpp ci almasabul maaliki yi soo demee ca sa soxna nga fab sa gémmiñ dëpp ci gémmiñam su boobaa loolee njàpp la dafay toj wala nga fab sa gémmiñ dëpp ci lexam su boobaa loola it njàpp la dafay toj yooyu daa bokk ci yi nga xam ne ci masabu imaamu malik radiallahu anhu dafay toj njàpp dafay sabab toj njàpp moom la borom téere bi indiwaale fii sabab toj njàpp nag bokkut ak toj njàpp jar bàyyi xel ci yu sew yooyu nga xam ne mooy na ci masalay fiq yi mooy sabab toj njàpp boolewu ko ci ahdaas yi da ko boole ci asbaab yi ndax góor ñaare teg lexam ci lexu soxnaam wala teg gémmiñam ci gémmiñu soxnaam te yem fa ñaare yombul ñëpp léeg-léeg rek ñu weesu ko tuuti tabarkalla ba macha allah walamsul marati ak laal jigéen laal jigéen lamsu nag dafa am ñu koy tekkee mas massul marati bi shahwa ak lamsul marati bu fekkee lams la nag moom mën naa weesu toj ndax aw laa mastumu nisaa ajaay tax bu dee mas nag bu fekkee baatu lams dañ koy tekkee mas muy laal ko ku laal jigéen sa jabar in xasada lazata bu ca jubloo bànneex aw wala boog jubluwu ko ci waaye daa dem ba ca biir wajadaha mu am ko ca njàpp la toj na njàpp la toj na cheikhul islam ibnu taymiya day wax ne ida massa li gayri shahwa fa hada mimma ulima bi darura an alsharica lam yujib minhu alwudu wala yustahabu minhu alwudu so demee ca jus bu njëkk ba xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn ci xaasiyatu ibnu qasim ala rawd al murabba wax jooju ci téere boobu la nekk ibnu taymiya mu ne bu fekkee ne dafa laal jigéen te jubluwu ca bànneex mu ne loolu xam nañ ci sharia ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxul kenn na nga jàpp ngir loolu sopp ñu it ku jàpp ngir loolu moom la imaam malik di wax fi moom it in qasada lazata bu ca jubloo bànneex aw wajadaha wala mu am ko ca lii nag bu ko lislaam di wax mooy jabar yow soxna waa ji amma bu dul soxnaam bu ca jubloo bànneex ak bu ci jubluwul bànneex moo bokk yem gépp góor goo xam ne sa loxo bii raay nga ko ci wala nga teg ko beneen jigéen bu dul sa soxna def nga bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy tabarkàlla boo xam ne bii yonent bi nee na la gën a oyof ci lañ lay defal yomal xiyaamati mooy ñu jël pont bu tol ni big daaj la ko ci bopp ba mu ba mu jàll ci biir loolu wali an yudxata la hadis ba wax ba mu àgg ñu daaj kenn ci yéen pont ci bopp ba mu sar pont bu tol ni big ba mu jeex ca bopp ba moo gën a oyof la muy amee bu yamal xiyaamee ci jox jigéen ju dul jabaram loxo wala jigéen ju jox ku dul jëkkëram loxo tabarkàlla lamsul mar akon mooy nit ki bi muy laal mooy soxnaam la ndax fii kat góor gii di jàngale fiq tabarkàlla ku dégg arab la waxut rek lamsu maratin dindi alif ak laam daal ne lamsu maratin su boobaa laal jigéen day dagan waaye lamsu almarati daf ko taarif dafa définir baat bi li muy tekki kon mooy su boobaa almaratu mii daa dañ ko moomale waaw waxut rek wa lamsu maratin ak laal jigéen wa lamsul marati alif ak laam suba mooy sa soxna amma soxna su jaambur moom yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam kera ba gaa yi di jaayante ca bayatu ridwan góor ña ñëw mu tàllal loxoom kenn ku ne teg sa loxo jaayante dafa am jigéen ju ne ko tàllalal sa loxo ñu jaayante ak yow mu ne déedéet wax leen ma dégg waaye man la usaafihanna imraatan abadan du ma jox sama lox bi jigéen bu mukk tabarkalla kuy roy ci moom ku nekk nag loola war nga cee bàyyi xel sallallahu alayhi wa sallam maa ngi dem bi koor gi desee tabarkalla wala boog jumaat ji mujj ci koor gi dem Touba ci fi ñuy ziare sëriñ bi sëriñ Saalixu Mbakke nekk ci saal boobu muy toog ci waxtu tisbaar ci takkusaan nit ñi ne ci mbaar muy ziar. dana yàlla yokk ko wér ma gis bu jigéen juumee ba bëgg a tàllal loxoom ni muy suufeele loxoom ngir rek mbooloo mi bañ jigéen jaxasoo ci ba loxoom tege ci loxoom tabarkalla mbakke dal na yàlla yokk ko wér loolu jot naa ko ca seetlu bu am solo muy wàcce loxoom léeg-léeg di suufeel ba jigéen benn du laal ca loxoom boobee ndax xam na ne dañ koy tere te it jàngalekat la bu mag a mag yàlla na yàlla yokk ko wér gi yaram loolu pour leeral rek ni mag ñi fonke woon wala ni mag ñi fonke njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam ba kenn ku ne ci ñoom dina fexe ba njuumte yooyu du ci dugg mu ne kon wa lamsul marati ak laal jigéen ji soxnaam in qasada lazzata bu ca jubloo bànneex ba aw wajadaha wala mu am ko ca jubloo ko ci woon waaye am na ko ca wa massu zakari ak laal zakara mooy góor li na ci biir tubayam mu laal ko bi baatinil kaffi ci biir ténq li ténq mooy weex weex bi na ci biir loxo bi tër di na ci su ko ci laalee njàpp la yàqu na aw bi baatinil asaabii wala ci biir baaraam yi mooy weex weex yi loolu tam su ko ca laalee baaraam njàpp la yàqu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadis boo xam ne bi rawaahu malik fi lmuwatta wa rawaahu ashaabu sunan wa huwa xadisun saxiix noonu lañu noonu la ko borom xam-xam ba waxee tabarkalla abdurahman ibnu abdulkarim al ubaydi mu nga xam ne moo taalif usulul manhaj al islami dirasa muasara fi l aqida wal ahkami wal adab mu ne hadis bi saxiix hadis bu wér la yonent bi def na ci hadis bi man massa zakarahu fala yusalli xatta yatawadda mu ne képp koo xam ne kii laal nga sa zakara bul julli mukk lu dul da ngaa jàppaat bul julli mukk lu dul da ngaa jàppaat mu ne nag kon wa massu zakari bi baatinil kaffi aw bi baatinil asaabi mu ñëw nag ci masala yi nga xam ne moo aju ci njàpp lu toj masala mu njëkk bi wa man shakka fii xadasin ku sikki sàkka ci mu toj sikki sàkka sama njàppale toj na mii xel ne la tojut de mii xel ne ah ngay sikki sàkka kooku wajaba alayhi war na ci moom alwuduu jàppaat kooku wajaba alayhi war na ci moom alwuduu jàppaat illa an yakuna lu dul mu nekk moom waa ji mu was wisan di jax-jaxal maanaam dafa am feebaru was-wasa moom fu mu toll rek xel maa ngi jaxasoo kooku dafa feebar fala shay'a alayhi dara waru ko su fekkee yasukku day jàppaat su fekkee yi was wisu du jàppaat yi was wisoog yasukku nag xaw nañoo wuute ndax shakk dafa sori ci xam-xam shakk mooy genn wàllu xam-xam kon day jàppaat was-wasa nag moom feebar la kon fala fala shay'a alayhi dara du ko war wa yajibu alayhi war na ci kii nag góor xaslu zakari raxas sakaraam kullihi sakara si lépp minal mazyi bu génnee mazyu wala yaxsilu du raxas nag al unsayayni al unsayayni ñaari àndoo ya àndoog sakara si ñaari ñi àndoog sakara si bu fekkee dafay jàpp ci wala boog bu fekkee dafay raxas sakaraam ci mazyu moom du leen raxasaale mas yu nag dafa sob moo tax bu dee génn mu laa mu raxas bantu zakaraam bi lépp ndax dafa sob ndox mi mën naa tooyal feneen foo xam ne fii waa ji du ko yëg wal mas yu mas yu nag waxoon naa la wad yu wala boog was yu was yu moo mooy dina di génn ñaare bu nit ki dee faj aajo wala muy tóor ndox te kaw caa yàgg mas yu nag huwa almaau mooy ndox ma alxaariju ndox may génn inda shahwati asuxra ci bànneex ba gën a ndaw bànneex bu ndaw a ndaw bi gën a ndaw ci bànneex yi moo koy génn ci góor mel ni góor gu sësaloog soxnaam di waxtaan mën naa mu génn wala mu teg loxoom ci kaw soxnaam mën naa mu génn wala mu muy raay ay léttam yu demee nekk yooyu mën naa am mu génn loola mooy inda shahwati as-suxra yii nag bokk na ci koy génne bi tafakkurin ci toog di xalaat mbirum jigéen aw nazarin wala di xool yu demee nekk yooyu moo xam ci film la moo xam ci ay ay ay këyit la moo xam ci li yeneen la yu mel noonu da koy génn moo tax mu ne aw xayrihi wala yu demee nekk yooyu su ko defee yii mu tudd benn bu ci nekk boo demee ci téere yi fiq yi daf ciy am tegtal boo xam ne bii mooy wane la xam ne moo tax yooyu ñu wax ko téere bi nag kiy jàngale mu di al axdar yi mi ngi koy wéer rek alal masabil maliki yi radiallahu anhu su ko defee moom njàpp mii nag waxoon naa ci bind bale ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññ na lool jullit yi soññ na lool way gëm yi ñu di ci taxaw ndax lu am solo la moom njàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis mu ne alaa adullukum ala maa yamxu llahu bihi alxataaya wa yarfacu bihi addarajaat qaalu balaa ya rasul allah qaala isbaaxu alwudui ala almakaarihi wa kasratu alquta ila almasajidi wa intisaaru alsalati bacda alsalati fa zalikum alribaatu fa zalikum alribaatu rawaahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir wan ñu baaxaayu jàpp mu ne mu ndax duma leen jàngal tegtal leen loo xam ne ci la yàlla yi fare ay bakkaar bi ci yëkkatee ay daraja saaba yi ne ko ah kay yaa rasulallah yow mu yàlla yónni mu ne li yàlla yi fare ay bakkaar bi ci yëkkatee daraja yi nit mooy njàpp lu mat sukk ci jamono bu nit ñi bañee jàpp maanaam sedd bi ñëw na nit ñi sawarun ci jàpp ngay jàpp wala am xew-xew na nit ña ne ca kenn ku nekk ne ca xew ma talatoo ko nga dem yow bàyyi fa xew may jàpp mu ne loolu yàlla da ciy far ay bakkaar du ci yëkkati ay daraja dina far ci ay bakkaar it bëri jéego di dem ca jàkka ja dina far ci ay bakkaarit tabarkalla toog di xaar julli ginnaaw bi nga jullee ba noppi maanaam julli tisbaar ba noppi sa xel nekk ci di xaar tàkkusaan mu ne loolu nag mooy ribaat loolu nag mooy ribaat hadis boobu muslim nett na ko yonent bi waxaat ci hadis mu ne su jaam bi gëm yàlla nekkub jullit jàppe bu sëlmoo bakkaar ba woon ca kanam nga day daal di rot ànd ak toq ndox ba mujj su raxasee ñaari loxoom bakkaar ba ànd ak ndox mu mujj ca ñaar loxo ya wàcc ak bakkaar bu mu defoon ci loxo bu fekkee bakkaar yu ndaw ya la su ko defee ba ndox muy mujj ca loxo ba ca yaram ya dafay daal di génn naqiyan min az-zunubi seet wecc ci ay bakkaar rawahu malik wa gayruhu mu di xam ngeen ne njàpp lu am solo la lu rëy la lu baax la nit ki su ko dee faral di taxoog dafa am yu bari yoo xam ne daf ciy mucc kuy saxoo njàpp kuy saxoo njàpp diisu la mën a liggéey maanaam sëriñ buy liggéey nit di ko naawtal wala mu koy liggéey mu dof mbaa mu koy tàqaleeg jëkkëram mbaa mu koy tàqaleeg jabaram mbaa mu leen jara mbaaje mbaa ngay jigéen ñu lay noob mbaa ngay góor ñu lay wooj mbaa ñu lay kort mbaa ñu lay takk xala yooyu yépp nit ki su dee taxoo njàpp heure bi mu yoree njàpp kenn mënu ko ca liggéey ku liggéey mu dal la rek ñaare dafa def dangaa am benn njuumte boo def tabarkalla njuumte boobu ngay def ngi mel ni dawalkatu oto ñaare lay waral accident di am la koy waral li fépp mooy njuumte mburum làmb it ñaare lay tax mu daanu la koy waral ñaare mooy njuumte fubalkat it ñaare li tax muy rata ay bii la koy waral mooy njuumte njuumte yooyu dafa am ci biir sharia njuumte yoo xam ne njuumte yu danger la moo di juum ci wàllu ñàkk a yor njàpp ak ci gëj laal alxuraan ak gëj a julleeg yu demee ni ko yooyu moo tax njàpp rëy lool kenn ku ne war di ko taqoo suñu borom tabaaraka wa taala santaane ko ndax yii ñuy bëgg a wax nga man di ko jëfandikoo bu fekkee jàppaloo nag mu ne kon nag bàyyil ma ci samay yëf ñii nga xam ne maa leen moom bu ci laal lenn li feeg jàppoo soo dëgëree bopp laal ko te jàppoo bakkaar doo ca am tuyaaba doo ca amit la nga ci jublu woon nit ñi nag am na ñooñ faale wu ñu sax yooyu du ñu bàyyi xel ci yooyu mbirum njàpp ak laal alxuraan ak yu demee ni ki yooyu seen yoon nekku ci waaye yu am solo la loolu la borom téere bi bëgg a ñëw firiñ fànce ko wax ya nga xam ne dañ koo tere ku jàpput mooy buntub tey bii wala mooy faslub tey bii di faslub juróomeel mu ne laa yaxillu du dagan li xayril mutawaddi ci ku amul njàpp salaatun julli ku amul njàpp daganul ci moom salaatun julli waxoon naa la nag ba ñuy door tàmbali téere bi ne kii ci ñi dégg arab moom la bokk bukkut ak bindikati tey yi moom dafa dégg arab bi mu ne laa yaxillu li gayril mutawaddi salaatun nga xam ne defu ci alif defu ci laam salaatun kon li muy tekki mooy kiirul njàpp daganul ci moom julli farata daganul ci moom safaa wiitar warta naafila warta julli genn julli gum mën a doon moo xam julli farata la moo xam julli naafila la moo xam julli armal la moo xam jullit tawaaf ba noppi la ci maqaamu ibrahim ku yorul njàpp daal du dagan ci moom salaatun genn julli gu mën a doon loolaa lay yóbbu ca jullit néew waa ji yorul njàpp ñëw taxaw di ko jullee te julleeg néew nekk sunna ci nit ñi mu ñëw moom yorul njàpp fas yéenee tiim bokk ca ulamaa yi ne ko déedéet jëru ko yow kay nga taxaw rek naka noonu jullee julli ajjuma tiim bi julli ajjuma mu ne déedéet ajjuma sa julli tusbaar boo wutee ndox mën naa am fii ak tusbaar ji di weesu nga am ndox kon nag ngant liñ la may dabi tas dabi ajjuma ji du tax nga tiimal ajjuma ji bëgg cee ànd déedéet da ngay dem kon wuti ndox yow saa boo amee ndox julli tusbaar laa yaxillu li gayri almutawaddii salaatun génn julli wala tawaafun ba tey da nga naan wala yaxillu li gayri almutawaddii tawaafun tawaaf mooy wër kaaba ga fii it bi mu nee tawaafun mooy tawaaful xudum du dagan ci waa ji te mooy bi muy door a ñëw màkka tawaaful ifaada du dagan ci moom te mooy ba mu bëbbee ba ñëw ci tawaafaat tawaaful widaa du dagan ci moom te mooy tawaafug wër kaaba ga bu fekkee ne yorul njàpp tawaafun genn tawaaf gu mën doon ci tawaaf yi xudum ifaada widaa tawaaf yii yëpp amu ci genn gum ci war a def moo tax mu ne wala tawaafun su ne woon nag as salaatu def ci alif ak laam mooy julli farata moo dul dagan waaye naafila dagan na su ne woon ab tawaafu su boobaa tawaaf yi bi ci nekk tawaaf waajib boobaay dagan ya ca ya ca def tabarkalla lañ koy tere waaye moom daf ni salaatun wala tawaafun laa yaxillu du dagan li gayril mutawaddi ci ku yorul njàpp salaatun genn julli gu mën a doon wala tawaafun tawaafit du dagan ci moom tawaaf gu mën a doon tawaaf nag mooy wër kaaba ga waaw tawaaf buñ ko waxee rek ci sharia mooy dem ba kaaba ga di ko wër féetale kaaba gi ci sa wetu càmmooñ wër ko ba muy juróom-ñaari yoon loola la ñu tuddee tawaaf am nay arkaan ak ay maxsuuraat ak wala boog ay waajibaat ak sunan yooye mooy tawaaf kon ñaareelu tomb bi ci li muy tere moo di li ñàkk njàpp di tere moo di tawaaf wala yaxillu li gayri almutawaddii massu nusqati alqurani alazim wala yaxillu du dagan maanaam walaa yooyu yëpp dafay ataf yaxillu li gayrillahi li gayri almutawaddii ngeen baal ma wala yaxillu du dagan li gayri almutawaddii massu laal nusqati alqurani kaamilu alquran alazimi alquran ju mag ji ki yorul njàpp warta laal kaamilu alquran ki yorul njàpp warta laal kaamilu alquran alquran da ngay dégg mu naan laa yamassuhu illa almutaharun ñi set a ko war a laal ki yorul njàpp mën naa taq ay taq-taq maanaam mi ngi ci sobe kon moom daa war a dem defaru ji jàpp bu sangu war a ci moom mu sangu door a ñëw mën a laal kaamil alquran ndax alquran téere bu rëy la boo xam ne bii waree su koo ñëw rek jànjaafu ko noonu yëkkati ko di jàng képp ko yorul njàpp bu ñu la waxee sax jottali ma téere bi war ngaa gàntu ne ki la koy wax jottali ma ko ah damaa yorul njàpp damaa yorul njàpp kon ku yorul njàpp du laal kaamil alquran bu fekkee nag dafa am ngant yu ko tax a mën a tiim su boobaa tiimay wuutu yii muy wax yépp waaw yii muy wax yépp lim ci wax mooy ki koy def yorul njàpp ba noppi yorul tiim waaye ku tiim nekk sa sa farata bi nga ñàkkee jàpp su boobaa léegi bu tiim ñëwee mën naa wuutu la nga doon def loola dara ni ko ci mu ne kon du laal nusqatil quraanil azim al quraan téere bu rëy boobu alxuraan téere bu mag boobu gis nga bu ñu dee joxe ay médailles wala yu demee ni ki yooyu ki lay jox sa neexal da ngay tàllal sa ñaari loxo mu teg ci lim ciy teg léeg-léeg bu ñuy inauguré menn mbir di ubbi ab barab da ngay gis dañuy fab ab ciseau teg ko ci palaat bu rafet jox ko benn jigéen mu daal di koy jël jox ko ka koy def mu yëkkati ciseau ba daggee ko la ñuy dagg ñëpp tàccu loolu ni ñu ko def ni ñu ko ormaale ni ñu ko sellale alquranul karim nun la bëgg ñu sellale ko nun lañ ko war a màggale moo war a gën a màgg sax ndax ciseaux yaag palaad yaag ñun suñu yëpp doomu aadama moo ko def rek ñu bëgg koo rafetale barab bi amaa nag kii di alquranul karim benn téere la boo xam ne bi suñu borom tabaraka wa taala moo ñu ko bind jox ko malaaka mu ñu wax jibril mu indil ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngale ko ñu koy jokkalante ba mu agsi ci ñun téere boobu yi ko yorul njàpp ku nekk bul ko di laal wala jildiha bu mu laal derba bu mu laal derba derba nag fi mu nekk nii téere yi ni ñu koy def bokkut ak derba dañu daan nag ñi dañu daan jël alquran ëwal ko ak mbuus di ko dugal ci mbuus gi mu nekk deru bëy wala deru xar ñu wulli ko ba mu nooy dafa alquran di dugal ci biir der boobee di ko tuur laj ko lañ mbubb moomee mujj mu am atte boo xam ne bii moo di atte téere bi koy def bu ñu la aayee laal laal laal yéreem yi dootoo laal jëmm ja bu ñu la aayee laal yére alquran su boobaa kon da nga xam ne jëmm ja kon waxi noppi ci ñàkk a yor njàpp kon der boobu di def alquran du ñu ko ko laalee léegi nag li ëpp ci téere yi benn couverture rek lay am waaye noona mu meloon nga xam ne mag ñi dañu doon bind kaamil bi ci seen loxo daal di wut loo xam ne lii moo di der boobu dugal ko ci biir wutal ko nag ak jàppukaay di ko gàlloo nii nga xam ne ni la ñuy def léegi koo seen mu gàlloo ab saak ñoom koo ci masaan seen ñaare danaan am amub téereem gàlloo ko noonu léeg-léeg ñu wax la ñu ne téere diw sàngam moo bind téere bii léegi nag tabarkàlla bi machines yi bare ordinateurs yi bari léegi ordinateurs yi ñooy bind machine téere yeeg ñoom seen yooyu tabarkàlla muy dem rek nit ñi di gën di mel ni kuy sori mbir mi te fekk ne alxuraan joojee mooy alxuraan ji tabarkàlla waaye nag ñaare soo masaan ne téere bii diwoo ko bind sëriñ diwoo ko bind loolu daan rëy lool tabarkàlla dafa mel ni nag yëg-yëg googu nit ñi dañ koy dañ ko dul bàyyi xel waaye alxuraan mooma woon mooma ba tey dafa fekk ne bii dafa laa gënoon a jege rek tabarkàlla wala mu ne laa bi yadihi mu ne du ko laale loxoom du laale alxuraan loxoom bu yorul njàpp du laale derba loxoom su yorul njàpp laa bi yadihi du ko laale loxoom wala bi uudin du ko laale bant du ko laale loxoom du ko laale bant du laal alquran ci loxoom du ko laale bant bu fekkee yor njàpp illa lu dut al jus a jukki ba min ha ca moom kaamil ba jukki bañ jukkee ca kaamil ba buubu day mayees na ko ko mu laal ko mu ne wala bi uudin du ko laale bant wa naxwihi ak yu demee ni ki bant illa al jusa lu dul jukki ba min ha ca moom jukki mooy nga dikk ci biir alquran tibb ci dara di ci jàng wala nga tibb ci dara loola ñu ciy tibb lañ tuddee jusu boo ko doon xool tey léeg-léeg nga gis jusu nekk ñaari isib léeg-léeg nag mu yées ko waaye bu xasee ëpp ñaari isib rek day daal di bëgg a weesu li nga xam ne mooy jusu tabarkal alhamdulillah mu ne kon kaamil boobu ki yorul njàpp bu mu ko laale loxoom bu mu ko laale bant bu mu ko laale yeneen yu mel ni bant ab bic wala crayon wala yu demee ni ki yooyu bu mu ci laal dara illa lu dut lam ca sañ a laal al jus a mooy jukki ba minha ba bàyyeekoo ca kaamil ba al mutaallama ba nga xam ne moom la ñuy jàngee fii ci moom ndonga li nga xam ne day jàng jukki bi mu toll booba may nañ ko moom mu di ko laal jukki bi mu toll maanaam ndonga lii léegi fer na ijji mën naa yëral boppam téere bi buñ ko sayee sumun xëy na fii ngoon mu mokkal ko loola mu jël juus ba nga xam ne ca lay jàng amul benn ngànte la xaraj moo tax mu ne illal jus a lu dul jukki ba min ha ba bàyyeekoo ca kaamil ba al mutaallama fiihi ba nga xam ne ca la ñuy jànge ca lañ koy jàngale ismu maf'ul la al mutaallama fiihi jukki ba ñuy jànge wala du dagan ba tey massu lawxil quraan laal alliway alquraan al azimi alquraan ju mag ji ala xayril wudui ci kaw lu dul njàpp alliwa mooy dénk woowu nga xam ne bu mag la daan doon ñu jële ko ci garab di ci bind alxuraan ci wet gii bu feesee nga wal ba ci bind geneen wàll ga bu wàll gu ko feesee nga raxas ga njëkkoon a fees bind ca bu ko feesee nga raxas gële boo noppee ba am lu mat juróom benni raxas wala juróom ñaari raxas fekk nga jeexal lu mat isib ñu ne la léegi tari ko nga daal di koy tari daal di koy wéer soo ci demee ba fer nag bu baax ba mu leer léegi nag léegi par jukki lañ lay jox waaye kii mënagul a liir ñaare lañ daan jox law